alhamdulillahi alkarimi silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarimi bokki téléspectateurs yi ñoo ngi am mbégte di ànd ak fii ci tool yu tedd yi nga xam ne moo di tool yi Serigne Saliou Mbacké di Xelcom mbokk yi xam ngeen ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Salihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér woote woon na liggéeyub ngóobum tooli Xelkom tànnoon ci nag kenn ci njabootu sëriñ Salihu di kenn ci moom di alxaaji Daouda sekk mu sëriñ Salihu joxoon ko ndigal mu wuy si ci liggéey boobu doon ci jëwriñ nekk ca Touba Xelkom def fa ab dalam bu yaatu waaye nag ba muy jóg mu woo mbooleem ay xaritam ak ay soppeem ak ay wëlëreem jëlit mbooleem ak njabootam muy soxna walla doom na leen nañ daa di dem wuji xel koom ci liggéey boobu nga xam ne sëriñ Seex mu sëriñ Saalihu xaasal nañu ci wuy siin wu rafet woo xam ne ba mu agsee la mu njëkk a def mooy waajal ay dalukaay yoo xam ne ku fi nekk boo fi doon am weerit doo bàyyi xel sa kër ci ay tànt yoo xam ne dañ koo climatisé ba mu sedd guyu waaye ak ay jumtukaay yoo xam ne lépp lu jëm ci wàllu lekk ak naan doo ko aajowoo fenn waaye itam nag yombalal nit ñi itam ci lu leen indi ci wut ay kaar ay biis yu bari ànd ak ñoom nag ànd ak njabootam gépp ak ay soxnaam ñëw xel koom ne ca liggéey ba ca tubaa koom ànd ak ñoom ca ngóob ma ba ngóob ma daanu waaye mu ànd ak ñoom ci jëf ya jëf fa jëf ju rëy yoo xam ne eh, bégloo na mbooleem njabootu sëriñ Cheikh gafa nekkoon te sëriñ Abo mu sëriñ Cheikh Saalihu nekkoon fa waaye alaaji Daawuda Sekk yamut ci liggéey boobu bi yàlla dogalee liggéeyub xelkom bi la vingt quatre la vint cinq ajjuma ca ngoon liggéey bi lépp jaax sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke mu sëriñ Saalihu joxaat ko ndigal na ko nag dafa am daara ju yees joo xam ne mu ngi ci diggante xel koom ak Daaru Xudus mu tudde ko Taysirul Asir te Taysirul Asir bokk yi mooy jàppandil lépp lu jafe daara jooju sëriñ bi war koo sanc waaye suñ borom xaasal alaaji Daawuda Sekk sëriñ bi ne ko demal boo demee nga sëkk ko lay xeer ya dindi ñax ma maasale ko ba manees ko daal di daloo dongo yi commencé fa jàng alxuraan ak di fa tërbiyewu ci loolu alaaj di Sekk xam nga guddi la waaye engagement yi boppam yu mu jël la daal di génne limu ay millions ne lañ daal di jënd mbooleem jumtukaay yoo tax xam ne dana tax bu subaa lépp mën a noppi muy ay burwet ay radu ay peel ay sarpeer lépp mu jënd ci quantité bu baree baree bari ñu xëy tisaare ko ñu yendu ca liggéey boobu eh, bi yàlla dogalee sëkk bi àgg ci gaawu bi bu takk sant jot eh, ci la nag sëriñ xaadim Mbàkke mi nga xam ne mooy taawu sëriñ si Ahmadou Mbàkke mu sëriñ Saalihu ànd ak sëriñ Abo ak bokki taalibe yi ñu fa teewaloon yëpp ñu maase yewwi mbooloo mi waaye yewwi nag Alaaji Daawuda Sekk ak ñim àndaloon ñëpp kon dañuy maase teewlu kàddu yooyu nga xam ne moo bàyyi ko ca yeewi boobu nga xam ne moo doon yeewi eh, Touba Xelkom wante zul jalali ndax ndax lu baax dafa mel ni ni ñu ko ittewoo ba mën noo yóbbu ca suñ nee na safaan boobee moom la seytaane soxla moom it. ba waxtu wuñ ci nekk rek. mu fas yéene moom di gàllankoor li lu nekk rek ngir moom la bëgg ak li bëgg du benn. nee na loolu nag bu gën koo leeral. mais bu ñuy liggéey noonu. mais bu suñu jëwriñ yi jiitoo ci liggéey bi. mais lépp lu mu wax la rek. na jël yëpp mënewul ñu ko ñaan ngeen jëf wasalaamu aleykum xanaa ne ñëpp tàllal fas dégg ngeen li wax tey wax amin bismillah mu yëkkati nag ay kàdduy cantam canti boppam yoo xam ne jooyal na ko jëmee ko ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu sëriñ Saliou di wax ne moom jëmmi boppam rek sëriñ saaliwoo ko moom alalam ak yëngutoom ak dalam ak noppeem léppam jébbal na ko sëriñ Saliou teg ko ci loxol ki fi nekkal sëriñ saaliw santaat ko ndax xaas ji nga xam ne sëriñ Seex xaasal na ko ci boppam jëlale naa liggéey bu njëkk bi mu ko joxoon muy barabu sëriñ Saliou bi mu defar ko ba mu dëppoo ak jamono dëppoo ak sëriñ Saliou waaye nag mu dellu xaasalaat ko ci xel koom nag xaas ju toll na jii mu ko xaasal waaye yemut ci ak yeneen xaas yu mu ko jox yoo xam ne wóor na ko ne ku bëgg a jëriñ murit bi da nga koy lëggéeyloo ndax sëriñ bi moo wax ne waq di xawaa na daamu fii xidmati wahab lahum maromo kon cant la gu wér goo xam ne moom sant na ko sëriñam di jëwriñam di sëriñ si ahmadou mbàkke mu sëriñ saaliw waaye delluwaat nag ñaan ñu ne nañ ko santal mbooleem ak njabootam la ko tàmbalee ci soxnay boppam jaar ci ay doomam waaye nag jàll ci ay xaritam ak ay wëllëreem yi nga xam ne ci biir kër Serigne Saliou lañ jàppante woon ak moom waaye wëllëre yi nga xam ne it suñ borom dogal na ab liggéey moo leen boole ak ñi nga xam ne ak bokk moo leen boole ñoom ñëpp bi mu wootee xel koom jóg nañ ñëw wuy si ko mu ànd ak ñoom ci liggéey boobu ba yàlla dogal liggéey bi mel ni nga xam ne noonu moo neex sëriñ bi kon nag El euh, Hadj Daouda Seck cant yooyu bokk na ci li nga xam ne xàq la ci nun mu tegoon ko ci suñ loxo na nañ ko ko jottilil waaye nag di jottiliwaat cantuk sëriñ bi comme ci wàllu communication sëriñ bi dañ cee féetale moom sëriñ bi yëkkati cantuy boppam moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu sëriñ Saliou jëmewaat ko ci alaaji Daouda Seck xam ne daf ko jàppee ku mbokkal sëriñ Saliou rek di mbokkum taalibeem ñu ànd di liggéeyal sëriñ Saliou ndax sëriñ Cheikh yitteem ak bëggam léppam mooy li fi sëriñ Saliou bàyyi woon mu yokk ko ba ñëpp xam ne yokk na ko waaye saytu ko aar ko ba dara du ko mën a ruur te loolu mooy jàngale ak yare ca àll ba loolu nag sëriñ si Ahmadu nee na saa yu ko wootee ku ko ci wuy si rek def na la ngay mbokkam di xaritam te gis na ne alaaji Daawuda Seck ak bëggam léppam mooy sëriñ Tuubaa Cheikh Saalihu Mbàkke kon nag mi ngi koy sant di ko ñaanal yàlla sunu borom fay ko ko ci ak njabootam fay ko ko ci jëmmi boppam fay ko ko ci ay xaritam Eh, te lépp loo xam ne ak bëgg ma sunu borom fekk ko ci ba mu am nam ko bëggee ci barkeb Serigne Saliou mbokk yi lii moo nekkoon xel xelkoom ca daaray xel koom ci jëwriñu sëriñ Serigne Alhaji Daouda Seck àndoon ko ak ay bokkam yëpp seen bokk taalibe Fallou Gala si la nekkoon fa jëlal leen ko incha allahu rabbi ànd ci nag ak Alhaji maam Cheikh Ka ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci jàpp ndal gi waaye di sant itam Serigne Mbacke Bousso moom itam mu Serigne Amdi Bousso ci jàppale gi ak jàppandal gi ba lépp mel niñ ko bëggee ñi ngi ñaan suñu borom mayaat ñu fekk waat ko déwén te lépp loo xam ne jëf nañ ko ci yàlla nañ ci daje ak ngërëmul sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. زوجة وعن ولد خذني وخذ جميع آل البلد واجعل إلهي مسكني تبابات مثل اسمها